asalaamaaleykum waa dina asalaamaaleykum yéen ñi nga xamante ne yéen a safoo seen télé bu mag boobu la di TP TV comme niñ leen ko waxee woon ci bande annonce bi tous les mercredis à partir de 17h ngeen ànd ak ñun seen émission boobu la di Jigéen Femme Jigéen Femme nag ki leen koy présenté di Sista Nabou l'enfant chéri de Sokabek bi may jaajëfal bu baax a baax euh, waa Tivaouane Peulh di leen nuyu di leen ziar di nuyu aussi tamit personnelu tele bi yëpp voilà di nuyu animateur animatrice waaw di nuyu tamit sama réalisateur bi Ibrahima. la Jigéen Femme nag tey nekk seen premier numéro ma ànd ci ak sama invité bi muy Tata fi Diedhiou maa ngi koy nuyu di ko ziar bu baax a baax. di leen jaajëfal bu baax a baax di nuyu kilifa diine kilifa aada di nuyu tamit ñi nga xamante ne ñoo tëdd ci lalu hôpitaux yi yàlla fëgg seen bopp ba ñu mën a dellu ci seen euh, activité waaye ñi nga xamante ne tamit euh, caabi da leen a féete ginnaaw duñu leen fàtte benn yoon parce que nee naa la tamit ci société bi lañu ñu bokk te tamit foofu jombul kenn di leen ñaanal yàlla rek yàlla teggi leen seen nattu ba ñu dellu ci seen njaboot ñi nga xamante ne tamit dañoo dëdd yàlla yéesal yërmande ci seen kaw comme ni leen ko waxee woon jigéen feem jigéen feem nag tey am invité bu mag tey ñu indil leen thème boo xamante ne nii thème la thème la bu doywaar waar la boo xamante ne nii mu ngi lëmbee àddina vraiment sonal na jigéen ñi sama mbokk jigéen ñi mais nag balaa ñu ciy xuus damay bàyyi sama invité bi muy maman Nafi Diedhiou maa ngi lay nuyu di la ziar di la bàyyi nga nuyoo ak téléspectateurs yi. maa ngi nuyu ak téléspectateurs yi di nuyu Nabou. di nuyu waa télé bi réalisateur yi ak animatrice yi di nuyoo ñëpp nuyoo waa Soka beeg surtout ma beral leen mention spéciale di nuyoo kilifa diine yi kilifa aada yi di nuyoo responsable bépp responsable politique bi nekk Tivaouane Peulh Tawfekh Soka beeg ba ñàgg commune Tivaouane Peulh ñàgg yëpp maa ngi lay nuyu di la jox sa wàccuwaay di nuyu sama jeunes yi sama jeunes yi nekk première année maa ngi leen di nuyu. waa groupe café maa ngi di nuyu bu baax a baax a baax ñoom Tafa groupe Tafa Tafa Guèye Moussa la Faye maa ngi nuyu di teg nuyoo bi sa loxo nga nuyul ma ko waa association bi nuyul ma ñëpp ñoom Famata maa ngi nuyu ñëpp di ñëpp jàmm di ñaanal jàmm am ci réew mi jàmm ci Socabek suñu Socabek naat ba ñëpp ko ñëpp ñëw fa maa nuyu nuyoo di ñaanal ñi tëdd ci armée yi yàlla na suuf oyof seen kaw yàlla na yërmande yàlla wàcc seen kaw yàlla na leen malaaka yërmande wéttali ci seen bàmmeel yi ñi nekk caabi féete leen gannaaw yàlla na leen yàlla yombalal ba ñëpp delluwaat ci seen kër yi fekki seen waajur yi wala seen njaboot yi ñaanal naa ñëpp di ko jaajëfal bu baax a baax fay di sama doom di sama lépp mm. di ko ñaanal di ñaanal Awa Sow di génn yoo bi teg ko ci loxo caacaak Awa Sow ñu nuyul ma ko waa Calabas yëpp Mojib maa ngi di génn nuyoo bi di teg di ko teg ci loxo Mamadou ak di ko teg ci loxo euh, Dieynaba Sané mu joxal ma ko waa Mogic bi yëpp di jox nuyoo bi sama nijaay Elage ak góor ngeen tas nuyoo tegal ma ko ci loxo waa Soka bi yëpp jeunes yi yëpp maa leen di nuyu ak jéeg yëpp jéegi Soka bi kii yëpp nuyu naa leen mention spéciale nuyu naa leen bu baax. voilà di ko jaajëfal bu baax a baax moom euh, maman Nafi Diédhiou mi vraiment kontaan na trop waye aussi tamit euh, duma faté wa Espagne ma len di nuyu wa Italie di nuyu tamit euh, wa Maroc Paris ñom ñi nga xamantene ñu ngi suivre suñu plateforme digitale wa Facebook Instagram YouTube vraiment ñu len di jaajeufal bu baakha baax waye nak moy nuyu wa Sokabek bu baakha baakha baax ndax nee la man Sokabek moy sama Paris moy sama États-Unis fofu la am di len nuyu bu baakha baax. tey nag euh, maman comme ni ma la ko waxee woon rek jigéen feem indil la thème boo xamante ne nii thème bu thème bu thème doy waar la thème boo xamante ne nii maanaam sonal na suñu mbokku jigéen ñi ku ko dégg rek sa fit day dem am na ñoo xamante ne nii jëlee nañ ci dépression ñii amee nañ ci feebar vraiment mu nekk loo xamante ne daal lëmbe na daal lëmbe na daal kër yi jaxasoo na ndax loolu muy wujje maman na fi ma bàyyi la loo xam loolu ci loo loo looy wax ci loolu noonu ci thème bi tey. waaw Nabou comme ni nga ko waxee wujje lu doy waaru la wujje lu metti la am sa borom kër ngeen nekk di jóg ak a daanu di jóg ak a daanu ba un jour mu takkal la wujju nar laa bàyyi ak say njaboot dem fanaani ci beneen néeg loolu rek. lu yéeme la danga koy muñ ndax yàlla moo ko bindee doomu aadama bindee ko jullit waaye lu metti la ci xol première guddi bi ba deuxième balaa nga koo miin boo tëddee doo nelaw sa xel dina xalaat lu ne ci guddi ci waaye yàlla moo ko bindee jullit war a am ay jabar war a am ay doom ay jabar danga ko koy muñ nangul ko ko waaye wujje mu ngi dofloo jigéen yi ci biir kër yi comme ni nga ko mhm. waxee mhm. wujje mu ngi yàq doom wujj ci biir kër yi mhm. wujje mu ngi féewalee jëkkër ak jàmm ak aawam mu ngi féewalee jëkkër ak doomam mu ngi féewale jëkkër ak yaayam mu ngi féewale ko góor gi ak papam féewale ko ak njabootam suñu maam yi njëkkee dañ daan wujje danaan am problème mais problème bi bariwul ndax lépp ci néeg lañ ko daal réglé ci famille lañ ko daal réglé ci kilifa gi lañ ko daa réglé. mais pourquoi tey pourquoi tey wujje bi nekk loo xamante ne nii rek loo xamante ni lu lu lu metti la déjà suñ nee bokk wërsëg la comme bokk wërsëg la pour man foofu dara ñaaw waru faa waru faa mën a am. waaw bokk wërsëg lañ ko tuddee. Mhm. da di bokk wërsëg yàlla moo ko bind ci aras waaye bokk wërsëg boobu. mooy lépp mooy li ma la wax suñu maam yi daan nañ ko def kenn du dégg dangay dugg ci biiru néeg ci biiru kër ay njaboot ñoo bokk nga gis ñi nga xamante ne ñoo bokk bàyyi bokkuñu ndey mais doo ko xam benn góor dina am ñeenti jabar bi juróomi jabar daan nañ ko am mais du daaw feeñ aaw bi toujours mooy yaay ci kër gi ñépp moom lañ naan yaay mooy uuf ñépp mooy yore ñépp waaye léegi dañu toll ci jamono ji nga xamante ni kenn ku ci nekk bëggul bootu ci a moom walla nga ñëw yow aaw bi munoo supporter munoo boot kenn ku ci nekk mu ngi wane ne man sama jëkkër man la nopp te lépp mu ngi dépendre ci jëkkër ji ci outil bi ak waxtaan ba ca outil ba ndax góor dem na wuti jabaram xamal ko ni dama lay wut yàlla moo ñu boole waaye sama aawo bi yàqalu lu ma dara te defuma dara lu ñaaw kooku bu ñëwee ala kulli alin force dina topp ci aawo bi ndax jëkkër ji dina ko teg ci aawo bi ci gannaaw aawo bi dëgg la waaye góor dem na wuti jëbaram ñaareelam wala ñetteelam ne ko ko nekk ca kër gi sama papa ma ko may wala sama yaay waaye yow maa la bëgg sama bopp kee mën lu ma yow nag yaa yore yépp yaay jongoma yaa gën a rafet yaa gën a def nii bu ko defee kee da koy jàpp ci xolam mais mama na fi yow suma la déggee dafa melni ko affaire bi dang ko jël rek buux ko manam ñu goor ñi da melni goor ñi kon ñom ñoy ñom ñoy tass seen kër goor yi ni ci gëna bari ñoy tass seen kër mama na fi yaangi yaangi togn ngi tooñ de bàyyi sama baay sama chamé ñi tamit mais est-ce que nekul est-ce que nekul tamit awo yi ñu ñu ñu fiir ba ëpp waaw ku bëgg fiir mais mais mais pas fiir yu ëpp yi tamit mais pas fiir yu ëpp yi awo dina fiir lé lé ñaarël dina fiir ñaareel dana ñëw du mun a supporter da nga gis aawo support mu maslaa ñaareel bi mënu maslaa mhm. mu ñëw gën a bëgg te alors que moo la fekk si mhm. mais lépp boo gisee ma teg ko ci boppu góor yi mhm. ndax góor bu jubalee rek lépp jub dëgg la dëgg la góor bu nangoo këram jub day jub bu nangoo këram rek la day rek la dëgg la mais boo jengee rek non seulement ci sa sa sa jabar yi mais day ñëw si njaboot yi njaboot yi ñi fiir dinañ ne kii kii la gën a bëgg suñu yaay. dëgg la gisee ko ne ne tendance am. Mhm. nee naa la man sama pap am na ba ñeenti jabar. dëgg la donte fekkantewuñu fa. Mhm. am na ba ñeenti jabar mais ñun ñëpp suñu aawo yaay suñu aawo papa mooy suñu mhm. boo duggee ci kër gi ñun ñëpp naan ñoo bokk ndey bokk baay ndax kenn ñemewul wàcc kenn ñemewul def lu dul noonu ci sa sama papa sama papa da koy bañ mu gudd xale yëpp benn baay la yëpp benn yaay. góor yi bu ñu doxalee yëpp benn yaay benn baay jàmm day am. dëgg la ndax jigéen léeg-léeg jigéen ñëpp xam nañ ko surtout jigéenu léegi. Mhm. ku ne day génn ak feemam. mais ku bëgg a andi feem rek nga xamal ko ne kër ji benn génn moo fi. dëgg la te moo la andi moo andi kii. soow mhm. du fa am. dëgg la dina daal di daal di normal. Mhm. kenn ku ci nekk dina def yëfam ci maslaa ci nëbbatu. mais maman na fi mais est-ce que tamit góor góor góor góor góor jar na loolu tamit parce que wujje pour man comme li nga wax la comme boo nee bokk wërsëg la foofu lu ñaaw war a faa am mais gis nañ ci jamono jiñ toll nii wujje yi dafa métti ñu ngi xëppante asib ndax góor jar na loolu wujje est-ce que jar na loolu fekk sa moroomu jigéen comme yow nga jël ko soode ko ñii di sotti ndox bu tàng ñii di sotti diwliñ ñii di màtt ba muy dagg mais est que góor jar na lool tamit waaw nabu soxna nabu mhm. góor jaru ko man man man góor jaraluma ko man lu ma waaye gën a bëgg rek ma bàyyi la yow jaralu la ko mais mais mais am na am na ñu ko jaral am na nag ñi mu ko jaral. Mhm. kenn ku ci nekk ak dégréem ak tension am. Mhm. kenn ku ci nekk ak ni ko yàlla bindee li mu mun a supporter ak ni mu mun a supporter. la am na ñi mun a supporter amul ñi mun a supporter. Mhm. mais góor jaralu ko. dëgg parce que yow boo calculer yow bi may ñëw ci ci kaw suuf. xamoo ko xamula àndu leen. dëgg la kenn ku ci nekk ak ndeyam ak baayam amaanaa fi nga dëkk ak fu mu dëkk sa dafa sori. yàlla àndi boole na. kon bu boolee keneen da ngay ne nangu ne mbir mi mbir mu yàlla la. mais léeg-léeg aaw bi nangu ko ñaareel bi du ko nangu. dëgg la léeg-léeg ñaareel bi nangu ko aaw bi mu fekk si ne dee man ci kër gi. Mhm. te mënu nekk. parfois dañ koy buux ñaareel yi naan dañoo sikk ñoom ñooy ñëw di taskari mais am na ci aawa yoo xamante ne nii tamit. bariwul nag dañoo dañoo dañoo dañoo sikk de. bariwul nag aawa yu mel ni nabu yi sist nabu yi dañoo dañoo sikk nabu aawa yi bariwul ñaareel yi ñoo gën a sikk ñu ñëwee rek ñoom dañuy ma ko nangu de ndax damaa am ay xaritu ñaareel du ma ko nangu du ma nangu ngeen di jël tool bi di ko jox ñaareel yi aawa yi tamit am nañu ñu doy waar parce que aawa yi tamit dañoo fiir nee naa man sama yaay du mais sama yaay ba mu ñëwee. Mhm. ñun ci moom lañu xool bu mu ñëwee dafa bootu. Mhm. parce que sama papa da koo jël boot ko ci sama gannaaw yaay. Mhm. sama gannaaw tante. ne ko da ngay bootu fii sama tànt kii tamit da koy boot ndax maa la andi andi ko. mais ki ngay boot ki ngay boot day fekk mu mu nangu nga nga boot ko parce que tey jii xale yi tey yii nii bu ñu la fekkisee du ñu nangu nga boot leen. waaw kon démb ak tey am na différence bu bëree bëree bëri différence bu bëri am na ci mais lu waral loolu lu waral loolu lu waral loolu lu waral loolu mooy mhm. sëy léegi ak sëy yu njëkk yi moo dul benn dëgg la soxna na bu mu njëkk ba danga daan bàyyi walla nijaay moo daan wuti mhm. léegi ñu ñooy génn bëggali suñu bopp wutali suñu bopp mhm. ka ngay dajal nga bëgg ko mu bëgg la dalay nëbb jikkoom doo xam jikkoom lu dul mu dugg si ci biir kër ji mm-hmm. bu ñëwee nag ci biir kër ji ngay doo ko xam jikkoom dëgg la te bu njëkk ba dañ la daan bëggale wutali la andil la mm-hmm. buñ la wutalee andil la lu xew ci biir kër ji kilifa yi ñooy seetlu xool xam woo ki nekkul ci yoon teg ko ci yoon mu ñëwaatam ci yoon mais léegi loolu amul dëgg la léegi toi et moo yàq lépp mm-hmm. maa ko bëggoon moo ma bëggoon yoonu kenn newu ci ba mu amee ba tey la wujjee yi am problème ba mu amee ba tey la kër yi am problème. Mm-hmm. la sey yëngu. Mm-hmm. Mm-hmm. amee ba tey la sëy yëngu. looluy problème mu jamono ji fii ñu toll. mais man li ma bëggoon a xam mooy cause bi lan lan lan moo moo waral manam ngay sol sa dàll di dem ci ci ci ci sëriñ maanaam pour dëdale soit muy aaw bi soit muy ñaareel bi. lan la lan la problème bi lan la lan mooy cause bi. waaw cause bi moom laa la wax léegi ndax kenn ku ci nekk ak jikkoom kenn ku ci nekk ak ni ko yàlla bindee. Mhm. yow jigéen bi ci sa jëmm bopp war ngaa mun a am sa feemu bopp ba doo déddale ndax jigéen bu nekk boo tëjoo ci biir néeg bi ak sa jëkkër war ngaa mun a fexe ba xam fan mooy sa point faible jëkkër. jarul sëriñ parce que tamit tamit tamit amna ci jigen ño xamantene moy lolou ñu melni man xaya di bu bëgga dé dee ah sa jëkkër bu waccé war la fekk nga sé défar ba mu baax xam nga sét défar ba mu baax mais ni nga xëyee suba ba ngon gi bu waccé non la lay fekkee do sangu do def dara tamit est ce que tamit bu démé outil ji leneen ci biti tamit est ce que nit dina ko ci non kenn waru ko ci méré ken du ko ci méré parce que daa waru outil parce que bari bari na sama mbokku jigéen ñoo xamante ne nii amatuñu temps pour pour toppatoo maanaam seen borom kër yi nu mu nu mu nu mu waree. waaw amatuñu temps. Mhm. toppatoo seen borom kër yi nu mu waree. jamono jay changé. Mhm. ba jigéen da daan toog boo wuti jox ko. Mhm. léegi jigéen da day wuti ñëw def ko ci kër ji. jigéen day wuti ñëw yor jëkkër ji yor njabootam. moo tax jigéen ñi boo demee wuti boo ñëwee dangay sonn tellement que. li la war lu bari doo ko man kon su ma la déggee bu baax dangaa bëgg wax ni sonn boobu coono boobu moo tax euh, góor ñi di dem di di di wëri ji leneen ci biti coono bi tax na ndax jamono ji métti na métti boo xamante ne jigéen ñi ñoo gën a sonn ñoo ko gën a yéeg ñoo ko gën a xalaat am métti na torop góor yi xam nañ métti bi de mais métti bi ni muy méttee ci jigéen yi mhm. du ko méttee ci góor yi koy wuti dëgg la jigéen ji jigéen wax dëgg yàlla dangaa war foo toll. Mhm. sa xelu jëkkër war na fu mu toll ni nekk ci yow. dëgg la. surtout jéeg. waaw jéeg yu ndaw yi léegi man dama leen gis parfois am na ñi nga xamante ne moom wax dëgg yàlla. paré nañ de dañoo paré dé am nañu paré waaw am nañu nga xamné paré pare gis gisna gis naa ku melni sama jumelle ayda ayda tiaba séeri papa tiaba Mom mom mom. aw bu pare la sha allah wax deug yalla roki roki tal ci sama rukku bi waaw ay ay ay jéegi pare lañ ñom tenañ caam ah ñom ñom ñoom aana mbay mari ñom ñom ñom tata mari sila ñoo ñoo ñoo dañoo paré ñoo dañoo paré ay ñom soxna jaay ñu ñep paré nañu mm-hmm. mais nabu mm-hmm. ñun bu ñëk ba caaru je jangi ne dinañ ma hmm ndax léeg-léeg ñuy naan diw dafa tok ci télé bi mu neex muy wax. hmm suma xëyee ci suba si suñu xëyee ci suba si ñun ñi ci biir kër ci suñu jeeg yi mm-hmm. dañuy sansé dem marché. Mm-hmm. bu ñuy sansé dem marché da nga yaaka ne dañuy dem xew bu ñu togg ba paré ngon sangu sansé ku ci sa jëkkër wacc sa benn morom du la ko hmm da ngay toppatoo sa jëkkër ba mu normal. Mm-hmm. bu guddi jotee tëdd sax nit ki dana sanguwaat defarwaat solwaat makkeewaat ba nga yaakaar ne kii day génn ndekete day dugg tëdd dëgg kooku sa jëkkër mën naa wuti beneen jabar mën naa wuti ñaareel mais lu mu wuti wuti ñaareel dina xam ne sama aawo bi taxul mu wuti ñaareel mhm. yàllaa ma bool ak sama ñaareel te ñaareel bi tam bu ñëwee dina xam ne diw yi yàllaa ma bool ak moom mais du ci aawo mhm. du ci defoo aawo lépp nag mhm. mooy cause léegi mm-hmm. cause bi mooy xaalis bi mm-hmm. xaalis bi léegi moo àndi problème yu baree baree bare dëgg la parce que xaalis bi léegi dafa ñëw lépp senegal lépp xaalis la booy tufli sa xaalis la looy booy wax xaalis la léegi nag su fekkente ne moyens yi demeewul noonu mm-hmm. da ngay dem wuti dëgg la ñi seen moyens ñi demee noonu sax seen jabar yi ñu ngi wuti di andi ci doom laay dëgg la waxtuma laa nag li nga xamante sa moyen demeewul mhm. soo xëyee dem yaa ngi yaa ngi jaay mhm. yaa ngi dem jënd li nga jaay mhm. nga ñëw yaa ngi sangu toog jaay ba 19 heures sa jëkkër si balaa ngaa jógee ba si ba commencé jaay bi <laughs> guddi na sa jëkkër si mooy loolu temps bi nga war a toog kiimal ko ataaya jox ko ataaya doo ko mën ataaya boo ko ataaya tam ataaya taf taf ngay ataaya dëgg la te ñun dañ daan boyal ànd ba mu boy nga gis ataay 5 heures ngay teg ci kaw teg ko muy gis naa loolu ndànk ndànk mhm. nga def ci ci dem yep ñoom ñaanaa xorom pol leen mais léegi loolu loolu bareetul léegi rarement rarement nga koy gis léegi na parce que kenn amul temps dëgg la kenn amul temps dañu toll ci société bi nga xamante ne góor ak jigéen ñëpp a mhm. ci jamono mhm. ku ne xam na ne nag góor parité goor yi dañ koy kaas la mais parité buñ ko waxé c'est c'est ci ci biti

mais Tata fi ma ñëwaat ci sama beneen question bi maanaam comme tey jii takkal nañ la wujj rek aaw bi jël ay bagaasam dem koo xamante ne dund nga ak moom ay at ngeen say 10 ans 12 ans ba quinze ans tey góor la diine may na ko loolu mu takk quatre femmes yaa ngi dégg mais yow bu ñu la takk ñu takkal la rek nga jël say bagages xam nga dem. loolu ci lan la bokk loolu est-ce na ci fulla ak fay la waaw soo na Nabou. Mm-hmm. foofu. Mm-hmm. góom bi nga laal noonu góom boobu moo gën moo ma gën a neex. Mm-hmm. góom boobu moo yàq bu bari. dëgg la. parce que jigéen waroo ñàkk personnalité ba sa moroom jigéen di la puus. jigéen waroo oyof ba sa moroom jigéen di la puus. da aawu jiitu ci kër. dëgg la. man lu may wax lu nekk damay joxe exemple sama sama bopp. te waa Kër Masara ngi nii fa ma nekkoon. Mhm. sama jëkkër takkoon na jabar. Mhm. sama premier aawo Kër Masar la. ñi dëkk si Sokaabe ñi ma jógee doon fii ñu bari dëkk naa ñoom xam nañ li may wax bu subaa dinañ na wax dinañ dinañ. xam mais tata tata na fi yow wujjeeg yow maman na fi wujjeeg yow du du yomb de. waaw moom laa lay wax jigéen def nii nii ngay def nii bu nekk du nii sax nii sax biti la mais jigéen bu nekk war ngaa mën a xam. sa jinax bi noy toje bopam ba. surtout lolu xuusal fofu bo xolé rek. manam fi xuusal fofu xolé rek mu xam li nga wax. manam la ma fofu non ma fofu man sama jëkkër ba mu wujju keur ma sar du ma ko faté jour mardi la. dëkk bi yëpp to mm-hmm. bañ ma wax xaar né dina buub samay bagage dem. dama mata di mm-hmm. ba tabax sama keur ba samp sama keur ma déedéet ba mu ñëwé ñëpp di laam laame di laam laame di laam laame nanguñu ma ko wax mom mi goor gi waxuma ko mm-hmm. sama njëkk bi ci kër ji moma ma dee ma ah sa jëkkër di tak na wucc wa dañ la kaara la wax man ko mm-hmm. lu lu bax la mu ne ma tay lay ñëw mu ne ko tay mu ne ma wa man ko amul problème nak togg añ bi gaaw ñu añ ba pare mo woko téléphone man ko jox ma passe damay dem jëli sama wujj mu ne ma sa bëna wujj mu ne ko sa jabar di nga koras koros kërama fas baaw mm-hmm. la taxaw mako jëlal kalandoo maa ñëw defar néeg ba bale ko fobeere ko lalal ko cuuraayal ko jox ko sama ànd jox ko samay fer jox ko samay séer. waaw déggal li ndax xam naa ne. ay waay soo mbokku jigéen ñi sama loxo lay mujjee soo mbokku jigéen ñi déglu leen ma maman Nafi mi. déglu leen ma maman Nafi yaa poste caara yaa ma déglu waa Kër Massar ñaa ngi nii di déglu M3 man sonn ma ci xuloo ma ci xeexu ma mosuñoo xuloo mosuñoo werante ba nii mu génnee ay bagaasam dem moom ak jëkkëram la mosuloo werante ak man mosuloo xuloo ak man maanaam jëkkër ma jote ma génneewu ma la ci de. mais man xam naa. génneewu ma la ci de sama jëkkër xam na man xam naa ne. su ma ko xoolee mu xool ma man xam naa. génneewu ma la ci aawa ah tamit dañoo yor seen yëf yu sew. non non feem la rek. seen yëf yu sew. dama la ne waaw doo ma ñëwal tuuti ci feem yooyu noonu ñamal ma si tuuti. nabu dama la ne. Mhm. jigéen bu nekk war ngaa am sa feemu néeg bi nga xamante ne sa buntu kër ji sa buntu néeg bi bu ko sa jëkkër ubbee dem fanaani feneen. Mhm. jëmm jafaay nekk waaye xel bi dina ñëw ci lan. ñamal ñu ci tuuti sama classe gi ñoom si sanaba yi nga xamante ne nii amuñu amuñu feem ñoom bu guddi jotee dañu naan yaat tëdd di nelaw rek. nelaw rek nelaw rek pour ñoom daal seen àddina lépp nelaw la. ñamal ñu ci ñamal ñamal ñu ñamal ñu ci feem yi ñamal ñu ci feem yi. da ngaa war a xajam émission bi noonu la tëdd jigéen feem ñëwal ci feem yi. jigéen da war a xajam. ah bon jigéen bu ngoon jotee boo ataayaay ba pare. Mhm. guddi ngeen ataaya ba pare dangaa war a duggaat xëppoowaat sa ndox laal tuuti sa parfum mhm. daa di gën sa crayon laal tuuti laal sa rosa déedéet kay da ngay biriyee nga ni ma takk sa takk ñun boobu sër yi ñuy waddoo du seen nuisette léegi bu la neexee sax mën ngaa sob sa nuisette daa di jël say fer yu baax teg ko ci kaw teg fële ànd bi teg fële sa poto cuuraay daa di yër yërlu di wër wërlu sa sa poto cuuraay bi déggal li mu ngi ci gannaaw toog mhm. boo sëggee di wër wërlu sa poto cuuraay bi yow balaa ñëw mhm. lépp mën fu mu dem it xel bi day ñëw. déggal loolu. fu mu ta dem. xel bi day ñëw sa potu cuuraay boobu ngay wër yaa gën a xam fi nga ko teg mais danga koy wër ay feem la. waaw déggal ma maanaam sama potu ma teg di wër loo dencul. nga càpp daal di wër wër wër génn benn bi nga càpp ma ne bi nga doon wër de fii laa ko sax gisuma ko du bii de ngay di wër wër di càpp cuuraay tuuti tuuti di ci gos kii. bi. Hmm. papier aluminium bi def ko ci kuddu bi teg ko ci kaw taal doomu bi muy gus ndànk-ndànk man daal maa ngi ci maman Nafi xale yi pare wuñu wàcceel baayam jox la wàcceel ndeyam jox la xale yi man ñu mel ni yow laay ma maman Nafi xale yi pare wuñu nag da nga leen a pare yow nag da nga leen di dugg ci rukk di laaj mag yi di di di mu ngi noonu di pare ndax góor yi léegi ñoo ko soxla dëgg la xale bu pare wul ñu wuti keneen billaay dëgg la xale yi góor yi léegi ñoo ko ñoo ñoo jamono jee ko laaj ñoo ko laaj dëgg la jamono jee laaj yéeg bi dangaa war a pare ci sa biiru ne mhm. toog di xaar du mbedd bi du wax bi du jikko bi mhm. jikko bi baax na ci ndax baax man gis naa ci jéeg yoo xamante ne na seen jëkkër yi bu ñu xëyee sax dañuy jënd ji ndékki di jënd ji ay ndékki ci taabal mais est-ce que loolu jigéen boo demee ba sa borom kër boo xëyee munul munoo ko defaral mu ndékki muy demaane ci ci ci place yi ndékkeekaay yi di ndékki te yow soxnaam nga nekk ci ci ci biir kër gi gis naa ko gisati ko. nabu loolu loolu yoon la. xam nga émission bi damaa bëggoon mu nekk émission bi nga xamante ni bés boo ubbee émission bi nga xam ne dañuy téléphoné. Mm-hmm. maa ngi lay ñaan nga invité waat ma ma joxe tam ma ma woo ñi ñi. ba léegi incha allah rabbi incha allah jigéen feem di nga toogaat fi yow maman na fi incha allah. nabu du léegi jamono neex. Mm-hmm. oto yooyu am bari. Mm-hmm. ñu dëkkee poste Thiaroye poste Thiaroye laa siy si. 88 laa siy si poste sama borom keur musul ndek ci Allah bi mm-hmm. du yoon parce que bo ba am soxna mo la wara a ndek ngi ndek amna na ki nek sokaab ak ñu koy naan commandant ndjay jëkkeur mère càcc mi ma doon tek ñu ci mm-hmm. por la nekkone sama jëkkër mm-hmm. sama añ da daan dem amay toggu ba pare xalé góor yi ñëw gël ci añ bi yóbbu ko por ñu añ tank sama añ yegul du añ sama añ la daan xaar mu añ ba suur ñaaw bool bi ba subaa bool bi fekk ci sama kër déggati naa bu xëyee balaa moo xëy dina fekk ba bu bu di sangu ji dina fekk ma defar ndékki bi ba tegal ko mhm. bu ñëwee doog a ba pare soogal mhm. su ko neexee nag bu yeggee jënd biru, lekkaat biir ta dolliwaat ci biir mhm. mais sama kër sama borom kër du génn te ndékki yoon su sama andi da ko fay fekk su wàcc jee guddi sama kër léegi yow looy wax sama mbokku jigéen ñooñu nga xamante ne di xaya dina yenn xaya da yi duñu toppatoo maanaam seen borom kër yi duñu leen jox sax même ndékki sax yow doo ko defaral sa borom kër day génn ci taabal yi di dem di ndékki waanu ci mbedd mi yi te yow soxnaam nga nekk ci biir kër gi war ko toppatoo war ko yére sax pour man sa borom kër sax yow yaa ko war a génn génneel yëreem bu muy sol parce que góor li mu xam bëriwul soo ko bàyyee ak sagoom rek du du baax ah. yow lan ngay digal sama mbokku jéeg ak sama mbokku jéeg yoo xamante ne tey bu ñu taalee tey seen seen ànd su amee tey xal mun na nañoo toog deux mois ànd bi du boyaat loolu looy wax loolu duñ taal cuuraay duñu parfum duñu def dara looy wax looy wax ñooñu. parce que tànn fi lii ma lay wax nii yow xam nga ne carrément ne am na jéeg joo xamante ne noonu lañ mel. du fi jeex ba pare buñ ñu leen takkalee ñuy voilà buñ ñu leen takkalee keneen indil leen ñuy bëgg ray di ray seen bop alors que ñom li leen waroon si seeni borom kër ñom defuñu ko. Mom la lay wax jégg ju nekk da nga wara xajam hmm bëgg na lool jégg da ngay xajam. mais xajam bi c'est-à-dire luy xajam moy lan luy xajam. jégg luy xajam moy. Mhm. jégg da ngay gëm sa bop surtout lool bëgg sa hmm mhm. jégg bo gëmé sa bop bëgg sa bop sa jëkkeur bu takkee téméré jabar sax lu la yëngal. deug la lola laa bëgg a dégg. jeeg mhm. jigéen pire dañuy naan jeeg la mhm. wa jeeg pire bu jeegantuwul mhm. da ngay gëm sa bop ngay gëm sa bop bëgg sa bop gëm sa bop bëgg sa bop fo tollu ku la gis da ngay attirant ku la gis rek bu la xolé rek xolam day sedd day sedd dafa dafa morom jeeg sax dina la xol rek xolam sedd c'est parce que nga gëm sa bop dëgg la nga gëm sa bop fonk sa jeeg bu nekk war na koo gëm. Mhm. jeeg jigéen du ay yére valeur yére valeur yi non dangay mhm. da sangu ba set yëndi sa diw bu baax. Mhm. wala sa saabu bu baax di ko sangoo. saabu bu baax du xeesal. du leneen même teint noir am na saabu mi nga xam ne day raxas peau grasse bi yëpp ba mu dañ. waaw ah, boo mel sa diw diw ba baax. boo mel ni sista Nabou teint noir bi di gën a briller. boo mel ni sista Nabou na nga xam ne da ngaa taayal ba bëgg dee. saal ordinaire bi rek ngay jël raay mbelle wala jël siwo bi root root dikk ndox rek xëppoo rek daal di génn dem. sa jëkkër xooli feneen nga ñàkk. voilà dëgg la de. benn xale mooy toog fële rek rocc ko mu ñëw toog. dëgg la te xale yi dañoo pare. na bu jéeg war ngaa jënd am saabu bu baax. di ko sang sa yaram di ko laaj. dëgg la. war ngaa am diw bu baax bu dul xeesal sa diw buy hydraté sa teint bi ba mu set dindi peau yi raxas ko ba mu set wicc. dëgg la der bu der bu setee rek day briller. dëgg la. jeeg dangaa war a jël di sa sa shampoing wala sa gel am na gel de douche yi am na mm-hmm. gel intime yi nga xamante ne mm-hmm. jigéen bu nekk danga ko war a di ko raxasoo nabu kepp bii mm-hmm. ak gooy bi ak digije bii di ko boole def sa infusion di ko naan boo demee toilette di ko raxasoo lu baax la ci jigéen ah lu baax la ci jigéen te lu mën a dëj jigéen la déedéet kay a téye góor la. nga ni ma góor du du de. Mhm. déedéet man d'accord ma loolu. dëgg la man d'accord ma góor sëriñ la. Mhm. sa yooyu noonu ngay defar. di ko mhm. def infusion di ci naan di ci raxasu. nga laver sa bas ventre bi ba mu set. yow bu sa jëkkër ñëwee bu demee lan lay wuti feneen. dëgg la du fa wuti parce ni mu bëgg mu ngi koy am. xet bu neex da koy jilli même boo laalu parfum boo rombee nit ki rek xet bi day jilli. mais jigéen nga romb nit ki rek. mu taf li mu ñëw la xet yi attali ko mhm. jigéen nga romb nit ki wala nga jàkkaarloo ak nit ki di wax mu dumoo yi ne c'est parce que mhm. xetu jëmmiñ bi mhm. non surtout man moom moom wax dëgg loolu moom daf may déranger ci jigéen jigéen da buroosu yor sa soccu di soccu dëgg la di def defar yow daal jigéen boo signé rek ku la gis rek war naa bépp sa borom la bu ñëwee ba mu fekk yaa ngi set wicc sol sa yére yu baax xeeñ lu neex. Mhm. lu safuree léeg-léeg sax nga siiñ tuuti naan ko waa gisoo kii bi ataaya bi naan kii na <laughs> naan nga ataaya ma tegal la ataaya nga teg ataaya bi jokk. Mhm. mun naan. dëgg la ñun dañuy daan daan daan sukkal léegi dañoo màgget bàyyi lépp. ni ngeen di màggetee neex na ma de. ni ngeen di màggetee neex na ma mais ñun dañ daan sukkal sa jëkkër day wàcc balaa moo yegsi. Mhm. ci buntu bi nga koy xaar potu daal. su ñëwee nga sukk may ko mu naan. mu naan ba pare delloo la potu daal bi nga doog a jóg. dëgg la jël dugg ci biir tegal ko saagam. ndox maa ngi ci bi. nga tànkal ko toilette gis naa loolu gis naa ci jéeg joo xamante ne ni bu ñuy may seet borom kër yi ndox dañuy sukk ba ci suuf. mu naan bu naanee ba pare mu dóor a jóg. mais comme tey jii lii nga wax ni tey jii nii bu dee ni aaw bi tamit lii nga wax fii yëpp du ko def tey jii ñaareel bi ñëw di doxalee nii nii ngay waxee. su ko defee ku góor ki gën koo favoriser ñuy naan ku góor ki dafa jeng te fekk da koo liggéey te fekk ne du du du du loolu daa dakaa indi loo xamante ne nii xamu ko woon avant. kay maanaam dundul woon. bëri na fi bëri na fi. Mhm. bëri na fi dund boobu moo fi bari. dëgg la kon li nga wax jigéen day am complexe complexe yu bari moo ñu rey. Mhm. jigéen ñi yu bari dañoo complexe bëgg nañu mais dañoo complexe. Mhm. te sëy nag laajul complexe. loo xamul jégal sa morom bi ko xam nga laaj ko. dëgg la mu jindi la. waaw mooy yoon. mais da ngay complexé dem di ci diw di ko laaj lii. Mhm. man na bu xam nga ne ñun mairie njëkk yi bu ñu wujjante ak yéen xale ndaw yi da ngeen di daw bàyyi ñu. ah man kay ñemewu ma leen. ñun ñii mairie yi njëkk yi feem ak suñuy pare. <laughs> maman na fi. jeex xale bu ñu tata mari tata mari si la tata tata mari si Mati. non ñëw ma yéen ma yéen moom man ñemewu ma leen moom ah, waaw yéen moom ñemewu ma leen ndax yéen da ngeen pare moom pare ngeen gën a feros xale yi 15 ans na na nga doon loolu benn weer rek lay may danga ñuy abal déggal loolu maa la wax li ah tata na yow yow yow fi nga foo teg ak xale yii yi nga xam ne dañoo wow bët ñun dañoo pare ñun li jën wow bët ñun xool xale yi wow nañ bët de dañoo pare xam suñuy faible xam naka ngay jàppee sa góor ba xam point faible am naka nga jàppee sa góor ci biir néeg ba déggal lii néeg hmm? ay nelaw lay def déedéet kay ñandoor ba suba du ci man dara loolu ñu jeeg da koo war a xam jeeg da ko war a xam di ko jaajëfal bu baax a baax moom tata <laughs> Nafi Jeejo mamana na fi yaa may ray nak <laughs> vraiment ah jeg, ah, jeg yi yéen tamit nak ah sukkandiku len ci limi wax comme ça bu ko defé ngeen mën a téye seen borom kër yi surtout ma ngeen fu fiir yem te li len war du ngeen ko def bàyyi len goor ñi tamit nak sama càmmiñ ñi bàyyi len wax deug yalla maman na fi ma ngi lay nak bu baaxa baax wax deug fa yalla vraiment tay mom dama contane ndax dama jaakarlo ak sama yaay mais mamana na fi lima lay laaj moy manam comme tay conséquences yi nga xamanteni ni mën na ci mën na yi ci am mana conséquences yi manam ci ci goor ki ak ci ku jigen ki ak ak ak ak ak ak gi parce que tay ji ni wu aw ak ñaarel bi buñu jubowul dom yi mën nañu baña jubo sen borom keur tamit mën na baña am conscience tranquille parce que tay mi ngi japp ne bu su ay jabaram ñu ngi fi nekk di di di di di rayante ndax bëri na fi te ji bu fekkonte ne dañoo nekk benn tey boo sa borom kër bu xëyee day am conscience tranquille xam ne kat sama kër jàmm laa fa bàyyi mm-hmm. mais ñi nga xamante ne ni dañuy xiiroo di ŋaayoo chaque jour histoire chaque jour histoire conséquences yi conséquences yi dafa rëy nag mm-hmm. conséquences yi si nekk dafa rëy mm-hmm. conséquences yaa ngi si yéen ñaari wujj yi conséquences yaa ngi ci borom kër ji. Mhm. conséquences yaa ngi ci doom yi surtout. surtout surtout ci doom yi doom yi ak doom bàyyi ni mu neexee surtout ci doom yi. Mhm. doom yi day am luy des seen diggante. Mhm. doom yi day am lu ñuy xoolantee seen diggante ndax seen waajur yi. dëgg la parce que bu ñu jubóowul rivaliser bi day dem ba dugg ci seen seen seen seen doom yi da ngay gis doom yi tamit dañuy wujje ku ne xam na ne doom dafa jege xolam xolu mm-hmm. xolu yaayam tey jii nii du bu gisee ni moom ak sama sama sama sama tata bi jubóowuñu doo am accès pour wax ak tataawam ndax danaa ni kii du wax ak sama yaay man tamit du ma wax ak moom. voilà surtout problème yi nag di démarrer. surtout. Mm-hmm. diggante doom yi. Mhm. problème yi day am diggante doom yi ak seen papa. Mhm. surtout. day am. dëgg la yéen mii yaay di sëy mhm. amaanaat bi ngeen xam conséquence bi ba ci ba ba xale yi màgg. ci ngeen di xam conséquence wala ba seen borom kër làqu mais conséquence yi ci xale yi moo gën a métti. na bu bari naa doom yi ngay gis ci mbedd yi. ñu dof wujje gu métti. moo leen ko yóbbee. dëgg la bëri na ñi nga xamante ne tey jii. Mhm. jàng nañu ba yey kayit mënuñoo am place. Mhm. bu jëy métti mhm. bëri na jigéen kii yu bari yi nga xamante ne jigéen doom yi jigéen yi di sëy ci seen néegu sëy yi. mënuñoo am doom wujje gu métti gi seen yaay surtout dëgg la wujje gi dafa métti parce que fi ñu ko jëlee léegi moo doy waar fi ñu jëlee wujje bi moo doy waar te pour man góor jaru ko tamit nag. kër gi du naat. seen doom yi seen wërsëg yi day tëju. yéen yaay yi du ngeen wér. dëgg la ku góor ki du wér. Mhm. léeg nga gis ku góor ki nga xamante ne du mën a maîtriser. Mhm. mu ndaw dem bàyyi leen. la bàyyi leen ci kër yi. Mhm. ngeen nekk ak seen jaboot. nga gis góor gi nga xamante ne day toog du mën a supporter. mu gàddu benn jabar ji teg ko fële teg fële aaw ba daal di dem. baleen. ngeen sonn ak seen doom seen doom yooyu loolu day jouer psychologiquement ci seen xel yi ba. ñi ci ja am ñi ci réussir dëgg yàlla moo leen di teg loxo. dëgg la mais ku yàlla tegul loxo dëgg dëgg du réussir. Mhm. parce que day jouer mentalement day jouer. Mhm. jigéen ñi war nañ cee bàyyi xel bu baax a baax. bu baax a baax dëgg la te xam na ne góor. jaru jaru jaru ko daal jaru ko. vraiment. góor jaru ko dëgg la. góor day dee ñu suul ko ci bàmmeelam yow nga dee ñu suul la ci sa bàmmeel. dëgg la te foo boobaa kenn ku ci nekk ak jëfam. Mm-hmm. sa jëf rek moo la fay fekk dëgg la de. kenn ku ci nekk. Mm-hmm. ak jëfam lu sëy neex neex neex neex nga nekk fa yow kese. Mm-hmm. ak ngeen nekk fa yéen fukk. ala kulli aali day jot day jeex. lu dul jeex am. pour man ko yàlla di jeexalee. bu la yàlla génnee bàyyi ko fi. day fanaani feneen. su la yàlla su ko yàlla génnee bàyyi la fi da ngay fanaane ak keneen mm-hmm. kon nit ñi surtout nañ ci bàyyi mm-hmm. góor yi nañ leen bàyyi ñu jaamu yàlla mm-hmm. jàpp ngir yàlla te yàlla tax ak suñu pas yi bañ leen a topp góor ku ko topp ku ne safara nga la la ah. la parce que tamit li nga wax la parce que da ngay gis jigéen ñoo xamante ne da leen di jaral dañuy dem sax ci ci ci maaraay dem ci ci sëriñ ma diw la liggéeyal ma sama doomu wujju bi parce que gis nañ ko fi ligéyal ma sama doom wujju bi bu mu gëna tekki sama doom sama jëkkeer bu mu ko bëgg dëddaatle bi mais est-ce que jar nako ko ko parce que kuko def lu way rendu dina ci sa loxo yi lay nañ dëgg la loo def doomi sa wujju mhm. day ñëwaat ci sa doom mhm. da nga gis ku dof lo doomu mu dof dof dof ba mu mu wër doomam remplacer mhm. nga def pour def sa doomu wujju mu këpp ci sa doom bi mu dee. dëgg la mbaa mu këpp ci sa doom bi mu feebar. Mhm. du wér mu abadan. dëgg la ndax li nga def kii loolu la yàlla delloo si ci kii. Mhm. moo tax kenn ku ci nekk xolam war naa rafet. Mhm. jigéen bu ne sa xolam sa xol war naa rafet ci sa njabootu morom. surtout. sa war naa rafet ci sa njabootu morom. ki nga dekkal yàlla moo leen boole. mënoo ci dara moom mënu ci dara. amaanaa boo ko boo ko laajoon du ngeen bokk. waaye yàlla moo leen boole comme yàlla boole na leen. yow bul xool góor gi. Mhm. góor yi léegi ku ne xam nga ne mooy loolu. <laughs> maman na fi bàyyi sama càmmeñ yi waaye bàyyi sama bàyyi sama càmmeñ yi mooy <laughs> profito di nuyu waale ni euh, Papa Thiaba maa ngi nuyu bu baax a baax waaye tamit di nuyu tamit El Hadj Canal Ngaar yi maa ngi lay nuyu di nuyu aussi tamit go maa ngi leen di jaajëfal bu baax a baax waa Soka Bek tata na fi fi nga fi nga fi nga fi nga daanalee foofu foofu laa yëkkatee dama bëggoon nga waxtaan ak tuuti rek ak sama sama mbokku goor ñi tamit nga waxtaan ak ñoom xam nga ñoom tamit ñu bàyyi jeng bi di ko fësal tamit ba mu ëpp tey boo amee ah. quatre femmes nee nañ di nga am kenn koo xamante ni moom nga ci gën a bëgg yaa dégg mais <laughs> pas nga fësal ko ba fësal ko ba mu ëpp ba keneen ki tamit di gis maanaam ba di ci siisu parce que yooyu noonu mooy dem bay bay indi lii nii ay xeex bi ay soodee xam nga ay dem ci sëriñ di dëdaatle yu mel noonu rek moo koy inde ah, nabu. Mhm. bi lu benn soxla la mhm. te moonte amoon na ku mu gënoon lu bëgg. dëgg la mais kenn xamu ko. Mhm. mais moom laa lay wax jamono jamono démb ak jamono tey du benn. nee naa la jigéen dafa war a xajam. da ngay nekk sa borom kër. nekk ak moom ci biir néeg am loo koy bañal. Mhm. ak loo koy nangu. mais maman na fi góor góor jigéen xajam téyewu ko de. téyewu ko de dégg góoma de. Mhm. góor. Mhm. ñu bari ñu ngi baakaaru naan diw dafa liggéey diw liggéeyu ko. dëgg la da ko woon feem bu mu gis bu mu xam. dëgg dafa xool fii xasan ci moom dafa fexe ba xam fii xasan ci moom mu fay wokk di fa dompot. déggal li fu mu jaar mu wuti la fu mu jaar mu jéng. ah maman na fi. yow moom yërëm naa koy wujjeeg yow. fu mu jaar mu jëng parce que da dem ba xam moom fu muy fu muy xasale. Mm-hmm. da ngay gis góor day am ñaareel. Mm-hmm. ñu naan mënti takk na ñaareel mënti kii xale la de. Mm-hmm. waaye mag màgget bi moom moom moom la def teg bopp moom la jox nopp. dëgg la. am na fi ko gu jigéen gi dem na ba mu fexe ba mu xam aaw bi xam na fan mooy point faible. ba mu teg ci tànkam. dëgg la kon. dina jeng sax te moom ku góor ki lu xam ne jeng na. Mhm. dëgg la dëgg la léegi naa dëgg. Mhm. loolu loolu wax. dëgg la dëgg la ngeen di xajam. dañ jéggi ndaw yi xajam leen. waaw dëgg la de dañoo war a xajam mais ñun moom mooy loolu. dañoo dañoo dañoo dañoo xaye di mooy loolu taluñu dara ndax wax kaa topp kaa kese moo ñu sonal. Hmm. topuka kese moo ñu sonal me ñu wara xam maa ngi nuyuwaale sama goro elen ah bi may ñoom maa ngi koy romb mu may la la nuyuwaale sama wa jakka ji deug la sama wa jakka ji ñom mu laay ñoom Siré Ba ñoom Abou ñoom Amadou jëkkëri Penda ñom isa ñoom ñepp ma ngi di nuyu ñom ci bacam ñu ngi lay seet ñu go nuyu na len ñu ngi lay seetaan ndax ñom TP TV TP TV rek lañuy top ñom top ñu lenen wa mi tada na fi solution bi maanaam lan xam naa ni jële ko fi moom dina métti ndax lu luñ fi luñ fi luñ fi fekk la mais pour boobu mu xaw a wàññeeku tuuti ñuy dem ak suñu xel te bañ a demee ak suñu suñu suñu xol maanaam topp topp maanaam suñu suñu xol rek bay dem di defi ji naka naka sudul noonu tey jii solution bi tey jii maanaam lan la ndax mënuñ ko fee jële moom luñ fi fekk la te fi lañ koy bàyyi mais maanaam pour mu wàññeeku bu bu dañu lépp it mu wàññeeku. maanaam pour mu wàññeeku ban. Mhm. man li ma jàpp man ci mhm. sama xel bu gàtt. Mhm. maa jàpp ne jigéen bu nekk. da war a gëm sa bopp. dëgg la surtout aaw. da war a sa bopp. xam yaay kan. xam ne yàlla moo la teg. bu muy métti yow la. te buy neex da koy bokk. kon yow bul xeel xool bu muy neex da nga xool ba muy métti. aawo gu nekk yaay la. dëgg la. ndax aaw moo lay fekk bu dara du dara. boo déggee ba dara du dara di nga fekk nit mu am alal mhm. sax di nga fekk nit mu am alal mhm. mais doo ko fekk mu nitee mhm. aaw bi moo koy diriger di ko diriger di ko diriger ba teg ko ci yoon nga fekk ki nga xamante ne yow ko defar tey ba keneen mu mun koo gis ci biti bëgg ko kon sa sag la kon yow gëmal sa bopp xam ne fii lu fi nekk lu ne yow yaa defar ba keneen di ci bëgg mhm. kon lu mu ci bëgg bëgg bëgg bëgg nit kii di ñëw mënul mhm. am yow li nga am dëgg la mënu faa fexe ba am mukk yow li nga am mhm. la nga dund waa ji ba mu tàkk ko bu dee geex geex na bu dee doole geexal nga ko li ci des yëpp day dawal ay yooyu rek doole bi yow yaa mais mais mais mais wujje bi comme wujje bi nii am na ñoo xamante ne nii duñ sax bokk jëkkër ay wuju peccorgo la ñuy doon parfois mun na nekk ay ay xarit ñaar ñi ànd da ngay gis mais day am rivaliser buy nekk seen biir kii su amee lii nag tey da nga naan sama bu subaa dinaa am lii wuju peccorgo tamit même chose. maanaam wuju peccorgo gën a métti. ah bon. Mhm. wuju peccorgo. moo gën a métti ah mhm. wujje ki nga bokk jëkkër. déedéet kay ki nga bokk jëkkër dèjà xam nga ne yaa ngi moom yéen a bokk jëkkër. Mhm. li muy am ngay am. mais ki nga xamante ne wuju peccorgo am na wuju peccorgo yi nga mhm. xamante ne wax dëgg yàlla macha allah mhm. mais am na wuju goo yi nga xamante ne mhm. seen bët yëpp ci kaw bi ci suuf yow lañ koy teg yàlla bul gëm sa bopp nag soo gëmee sa bopp seen lépp seen bët yi ci yow lañ koy teg dëgg la di la xool dëgg la parce que mënul ñàkk ñu tudd leen ñu ñu tudd leen parce que émission bi du tey thème bi wujje la loolu moom moo tax ñu boole parce que wujju peccor gay tamit ñu oh. ñu ngi ci kër gi xarit yi rivaliser bi métti na daal métti na. wujju peccor gay mhm. ci kër dafa métti. non man damay dégg rek ñu koy wax. yii dafa métti. Mhm. wujju peccor gay mhm. ci kër dafa métti. dëgg la mais lu mu métti métti métti. yéen góor yi bu ngeen amee seen fulla. dëgg la am seen fayda seen kër. am li ngeen bëgg seen kër ji mu taxaw. Mhm. métti bi dul feeñ. dëgg la. mais su fekkente ne kenn ku ci nekk day jox nopp jabaram. Mhm. di xool li kii di def wala li kii di am di sol wala di lekk te sama jabar. Mhm. am ko. day métti parfois mu xaw a métti kii di situation day baax keneen ki situation bi demewul noonu. ñu jël ki nga mhm. xamante ñu jël ki nga xamante ne ni moom la situation baax jël ko favoriser ko aj ko ci kaw ki nga xamante ne nag daa mel ni sista na bu moom bokkul ci bokkul ci kër gi daal bu dara amee kenn du ko yëgal kenn du ko wax ne lii la kenn du ko wax laa li ma wax xam nga léeg nga wax wax mhm. ñu naan kii dafa toog télé bi mu mhm. neex mais damaa bëggoon tey doonoon démb wala doonoon émission bi nga xam ne nit ñi dañuy woote wala dangay dox ba dugal la Kër Masar ak poste Thial. incha allahu rabbi di nga fi toogaat du yàgg dara jigéen feem rek di fi toogaat incha allah. Mhm. léegi dañoo mag sama mhm. mhm. ko ak feebaru katara eh, xaw dëgg la dal na ko yàlla saafara. waaye ñun ba ñu dëkkee poste Thial. juróomi góor juróomi góor ñaar ñi ñoo bokku baay mhm. ñeneen ñi ay doom baay la mhm. ak suñu njëkkee ak jëkkëram mhm. waaye ñun ñi jigéen musuñoo xam kenn ku ci nekk sa jëkkër ñaata lay joxe kii di mag ci kër ji ñoom ñëpp bu ñu ñëwee foofu la ñuy jaar ku wàcc teg sa saak sa sa jëkkër jox sa jabar jox la nga lekk ba pare nga naan balaa nga dugg sanku di nga dem nuyoo ak moom li nga yor ci sa loxo ni nga koy nuyoo mu teg ko ci loxoom ngir def ko ci poosam kay mhm, mhm. ñëw bu guddi mhm. su yeewoo fajar jox ko aawoom bi kii aaya togg aawoom moo lay jox aawo bi moo ñu daan jox dépense kenn ko ci nekk doo xam sa jëkkër ñaata la joxe guddi ji lañ koy regle joxe ko sutura kenn du xam lu jafe léegi sutura amatu fi kenn du xam ko aaye nga dem marché ñëw togg nga yëkk yéen ñëpp ngeen lekk dëgg la noonu lañ daan dundee mm-hmm. kenn ñemewu wane ne man sama jëkkër moo am wala sama jëkkër amul pourtant amoon nañu fa xam ne amuñu mm-hmm. amoon nañu fa xam ne amuñu dëgg la mais kenn mosul wane ne man sama jëkkër moom am wala mooy joxe wala mooy def parce que xamoo mm-hmm. dëgg la xamoo te sa jëkkër du wee du neex mu ma mu la lii laa jox sama mag wala lii jamais bu ñu toogee waxtaan joxe chaque semaine dañ daan def chaque semaine ñu nguur yi dañuy toog concertation waxtaan réegi mhm. waxtaan ñun ñun ñëpp kër gi li fa li fay faay yëpp ñu ne fii lii mais léegi loolu amatul parce que jàmm amatul kër yi amatuñu jàmm kër yi amatul jàmm léegi kenn ku ci nekk sa kilifa bopp la mhm. nit ñi ñoo nangootuñu ki leen ilif dëgg la te tant que yow buggoo ki leen ilif yaa ci erreur mhm. tant que yow buggoo ku lay ilif ku la yedd dëgg la dangay bari ay pax parce que àdduna. Mm. loo xam-xam am na ku la gën a xam. dëgg la loo mën-mën am na ku la gën a mën. wallaahi. te xel puso la. Mm. xale mën na am mag mën na kaa la dëgg la. ñun dañ daan am suñu mag yu baax ci koñ ba. Mm-hmm. soo génnee su dara amee. Mm-hmm. da woo ci néegam. Mm-hmm. nga ko léeg nga dem nuyoo ji. wala mu ñëw nuyoo. dina ñëw dugg nuyoo ba génn. kenn xam lan la ñëw mais yow bii mu soxla di nga xam ne dina la wax ne. soxla naa nga ñëw fekk ko ci kër gi. Mhm. mu wax la ne la defal ni defal na defal naa mhm. li nga def. dëgg la te kenn ko. dëgg la njaboot yi benn lañu ku ci gis ku ci deful lu baax mhm. mu dóor. wala mu saaga wala mu yent man maa gënoon a nekk xale ci kër ji yëpp. ñu ngi sëy sëy ñoom seen doom yëpp maa leen jàngal toog. seen doom yi ñëpp maa leen jàngal toog. macha maa leen daan woo ñoom maam Tamba naa leen ñeneen ñaa ngi Malika. ñeneen ñi ñibbi nañu Casamance. ak seen kër yi ndax seen liggéey fofu la nekk. dëgg la mais solution bi looy ñaax sama mbokku jigéen ñi jeeg ju ndaw ji mel ni man ak tamit euh, ma suñu suñu suñu suñu suñu suñu càmmeñ ñi góor ñi. Ah, man de li may ñaan mooy. Mhm. mooy li ma wax rek jeeg ju nekk. Mhm. na nga nangu. Mhm. soo nangoo tey suba. di nga noppal dëgg la soo nangoo di nga noppalu. soo nangoo. di nga noppal te nga gëm sa bopp. surtout gëm sa bopp bi mhm. nañu gëm suñu bopp ñun jéegi nañu gëm suñu bopp dëgg tey formation bu ñu dem sax ci loolu lañ doon lañ lañ lañu mujjee formation bi jigéen bu nekk dangaa war a gëm sa bopp soo gëmee sa bopp di nga am li nga bëgg di nga yegg fi nga bëgg a yegg te dara du la sonal doo gis dara ba bu fees sa bët dëgg la sam wujj du fa nekk sa ba nga koy teg ne kii wujj la parce que gëm nga sa bopp mhm. góor yi jéngi mooy nañ ko moytu mhm. mënul ñàkk nag. surtout loolu. mais da ngay moytu jàng bi. Mm-hmm. da koy moytu bu baax. Mm-hmm. parce que ay jigéen boo leen dajalee. kii yaa ko andi kii yaa ko andi. Mm-hmm. ak lu mu manti doon. kii bu mu xamal kii kii bu mu xamal kii. dëgg la. yow yemaleel ñëpp. soo duggee ci biir na loo mën a defantaat kii gën a xam. mais boo toogee ci ëtt bi yemaleel. parce que ci yemale boobu la sa njaboot yi. di la nawee mm-hmm. ci yamane bobu ngay mën a say njabot yi mu dugg sen bop bopp mm-hmm. Mm-hmm. ci yamane bobu nga mën a say njabot ba li nga bëgg ci ñoom nga am dëgg la dëgg la mais boo jengee di nga wo doom diko wax hmm mën na la tontu comme mën na la baña tontu mais dina wax ci biir xelam ne sa papa mi mom ko duggul mu may bëgg duggul hmm <laughs> du nangul nga wax dëgg la bu ko def moo tax yi dal seen kër yaangi nonu bu tassé yéen a ko tas. déedéet waaye. góor daal bu kër yi kotas. daal Keri a ko tas. <laughs> mbaa du bu kër yi mu réglé. ay waay bàyyi sama càmmiñ yi mu réglé kër yi. kër yi réglé mhm. bàyyi suñu càmmiñ yi ñun jigéen ñi tamit kenn rawu ñuy dañoo sikk maman na fi yegg nañ ci cappaandawu émission bi Jigéen Femme tey nag mu nekk premier numéro bi ma am contentement lool dalal la vraiment gis naa ni nga nekkee ci sokaa beeg génnee li tax ma xëcc la teg la fii xam nga nekk jigéen goo xamante ne nii jigéen bu jàmbaar jigen bo xamantene ni soxlawul daraay góor macha allah fajar ngay xey di teel a boole ci tamit euh, di di di boole ndaw yi ñu nekk benn macha allah maa lay jaajeufal bu baaxa baax di la wax na tax na la nga ba di la nga tagato ak asan wi waaw bu mhm. man ma ngi lay remercier ma la war a remercier mhm. dina ñaanal ndaw nga mhm. fi nga bëgg yegg yalla na nga fa yalla yegg ala amin yalla nga toog bokk lepp nekk directrice amin télé. amiin sa réalisateur rek sa animateur yi. sa mm-hmm. sa sa caméraman yi tamit. Mm-hmm. maa ngi leen di macha allah Ibrahima Khalilullah moom la mm-hmm. ah, Ibrahima ah, Khalilullah la ah, moo nekk si réalisa si réalisation bi. toog ba nekk directeur bu télé. amiin na ko yàlla mën na ko te mën nga ko ndax gis naa bi ma ñëwee ba tey sa dugg Mm-hmm. sa sa liggéey bi. Mm-hmm. yàlla na la yàlla bàyyi. macha allah TP TV ay xale yu xarañ ñoo fi nekk macha allah. waaw TP TV la télé qui vous waaw man wax dëgg yàlla naw naa mm-hmm. ma fi gis tey naw naa leen ndax am ngeen fulla ci li ngeen di liggéey am ngeen ci fayda te gëm ngeen seen ma doon gëm ngeen ci seen bopp bu baax. ndax bu ngeen gëmuloon seen bopp yéen ay xale yu ndaw ngeen. dëgg la lu ngeen fi mën a yor tey. di ko teg di ko doxal ba ñëpp di ci seetaan. dëgg yàlla ci gëm sa bopp. dëgg la dëgg la ci am fulla ji. Mm-hmm. ci am personnalité bi ci mm-hmm. la. mais aussi maa ngi nuyu sama mbokk sokaabeek yi. Mm-hmm. nuyu ñëpp. nuyu sama formateur bi Mouhamed Ndiaye mi ñu ak may ak Maymuna ak Soxna Khady maa ngi nuyu ñëpp sama waa groupe WhatsApp yëpp maa ngi nuyu nuyu Mouhamed Faye Mouhamed Faye jóge di ko nuyu ndax doom ju ma bëgg la. doom ju jox cër la. doom ju naw la doom ju ma respecté ju ma bëgg la di bëgg sama avenir maa ko nuyu bu baax di ko ñaanal gudd fan ak wér di nuyu waa këram di nuyu soxna Awa Awa Diouf non Awa Fay la léegi ñëpp fay la mouvement maam yëpp fay la mm-hmm. di nuyu madame njaay di nuyu ñoom góor sama waa koñ mm-hmm. fédération Tawfekh maa ngi nuyu ñépp gën nuyoo bi teg ko ci loxo góor ak elage mu yeggaleel ma leen nuyoo bi su ma limee damay juum waa Mojib waa Pastef Tawfekh maa ngi leen di nuyu génn nuyoo bi tek ko ci loxo di loxo ak loxo sëy ñu yeggale ma ko yi jigéen yi ko ci loxo may di ak jena ba saane sama jabar maa ngi nuyu ñëpp santi jep di gërëm ñëpp nuyu ñoom ana mm-hmm. ñoom ana mbay ana dama ka war a nuyu dëgg la seri cheikh seri cheikh mm-hmm. dama kaa war nuyu mm-hmm. ku bëgg sama njabot dëgg la soxna njaay borom baax la ñu bëgg samay njaboot soxna njaay la ñu ma bëgg-bëgg say njaboot mhm. ndax jën ku bëgg a njabootam rek bilaay dëgg la wallaahi bu ñuy jénn ñooñu boo ñuy solal te duñu laaj dërëm lu dëgg la dëgg la sama waa kër yi dañoo dem ba mhm. dañoo mel ni ñoom ak aan soxna ay mag ak rakk dëgg la xam naa ci dara xam naa ci dara ñu ma bëgg na maa ngi leen di nuyu mhm. seen néegu sëy yàlla ngeen jur ci ay waliyu amiin amiin yàlla na leen yàlla boole ak seen jëkkër yi ba aras amiin amiin boole leen ba arjana firdawsi amiin allahumma amiin ñu bokk leen ñoom Pape ñoom Charles yëpp maa ngi leen di nuyu mhm. nuyu naa ñëpp ñoom Malick Ndiaye ñoom Tafa ñoom Cheikh Fall mhm. ñëpp maa ngi leen di nuyu mhm. nuyu sama góor bopp Babacar Niass yàggul a toxu si waaye macha allah di séer yi Mam ak Yacine Diop maa ngi leen di nuyu bu baax nuyu nag sama waa koñ boobu yëpp ku lim juum ku lim juum ku ma fàttee rek xamal ne dama laa fàttee jeena ba mm-hmm. maa ngi nuyu yow ñëpp ak say njaboot ñaanal la yow fi nga toog mm-hmm. ma toog ak sa borom kër aljana fi dawsi yàlla na sa njaboot yi barkeel ba yóbbul la bàkk amiin amiin amiin maa ngi nuyu ñëpp amiin amiin nuyu ñoom Awa Sow mm-hmm. ñoom meer caati ah, nuyu meer jaabi nuyu sama waa poste de santé sama ICP Nogoy Njaay madam ja nuyu Ndey Kebe mm-hmm. madame jaata sama mm-hmm. sage-femme mm-hmm. ak sama yaay Sarata ak seen équipe ñëpp maa ngi leen di nuyu nuyu naa post bi cat ba cat gendarmerie maa ngi nuyu commandant maa ngi nuyu équipe bi yëpp ñoom Koli ñoom Camara ñoom Ngom ñoom Ndom ñoom Dieng ñoom Diédhiou ñoom Jaay ñëpp maa ngi leen nuyu ak sama goro bopp te gendarmerie maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp nuyu naa ñëpp ku ma fàttee nag ku ma nimul nag fàttewuma la dañuy sondee dañuy nuyu. dëgg la te temps bi moo jeex. dëgg la maa ngi nuyu ñëpp. li mhm. nuyu sama borom kër. Mhm. da ko ñaanal gudd fan ak wér. Mhm. amiin amiin ko ñaanal surtout bu baax ndax ba ma mënee lii tey. moo ma. bàyyi woon démb di ma teg. dëgg la ba tey jii ma mun lu bari. dëgg la maa ngi koy nuyu. maa ngi koy sant di ko gërëm di ko ñaanal gudd fan ak wér. ñaanal samay njaboot ci sama taawu bopp aji. maa ngi koy ñaanal. jooyu ma dara ndax moom mm. aji binta tàmba mm. lépp la may defal dëgg la mu feyee ko rek ñoom ne ma yaay lii laa feyee jënd yëpp teg mm-hmm. soxlawul dara bu amulee dara rek man maa tax yàlla na la yàlla teral incha allah amiin yàlla na leen yàlla teral amiin amiin yàlla na leen yàlla yóbbu mm-hmm. fi ngeen yegg fi ngeen bëgg a yegg mm-hmm. ñoom Seydina bu ñoom Abibu ñoom ñëpp man naa samay doom daal xam naa ne leen dëgg la yàlla yàlla daal laa mm, bu baax a baax fi vraiment tay kontaan naa mang lay remercier bu baax a baax parce que tay ji mënoon nga ma xeeb. wax deug yalla mais dama la ko wax rek sama trésorier <laughs> ma Sow mm-hmm. nuyu nana bu baax ak sama mu keur maa ngi lay faté lay fàtte sama mel di Diédhiou ma ci cité Socab ak cité police ba ko deug la madame Sow gor la garmi la mm-hmm. moo tax ma <laughs> la. ñeneen ñi des moom dañ dañ lay dañ lay muñal ba nga ñëwaat. toog fii si émission jigéen feem yow dañuy ñëwaat. yow dañuy ñëwaat nga xamante ne instant bi nii temps bi jeex na ñëpp di woote. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. di la remercier boo di ko remercier bu baax a baax moom maman na fi jéeju mi vraiment tey kontaan naa trop wax dëgg yàlla parce que mënoon naa ko proposer tamit mais dama ko ko wax rek am tegu ci benn baat ne ma nii vraiment loolu moom lu lu lu rafet la vraiment kontaan naa trop waaye nag jigéen fem du du du du jeexte nuyu ma sama réalisateur bi Ibrahima la maa ngi koy nuyu bu baax a baax di ko jaajëfal di nuyu tamit DJ Rona vraiment Rona man nabu aw ma sa fay vraiment gis naa sa taxawaay vraiment gis naa ni ma jàppee macha allah. di nuyu ñëpp di nuyu waa Kër Massar di nuyu sama papa di nuyu sama yaay di nuyu tamit aussi tamit sama sœur di nuyu tamit monsieur Kébé mais toute la famille Kébé tamit depuis parcelle Assainies maa ngi leen di nuyu bu baax a baax di nuyu tamit waa Tivaouane Peulh ak waa Sokabek di nuyu waa touru mardi touru jeudi maa ngi leen di jëfal jaajëfal bu baax a baax di leen jox dig dajee incha allah rabbi mercredi prochain même heure même fréquence sur la TP TV la fii rek lay amee jigéen feem ak beneen thème ak beneen invité incha allahu rabbin ci ki ma topp ci moom mm-hmm. mu ngi sédiment ñu ngi koy naan ñimma mm-hmm. sama nijaay di ko denc mm-hmm. waaye mag kese sama yaay la kooku su ma yàggee toogee ci sama néegu sëy bokk na ci ñi ma dégg ba tey bii. Mm-hmm. tey jii. Mm-hmm. moom doom la ma jàppee xale bu ndaw la ma jàppee. Mm-hmm. chaque fois mu ngi nemmeeku dama toog gis. dëgg la dëgg la ñim ma jiyee. dëgg la dëgg la. saf ñëpp maa ngi leen di ñoom maam eh, ñëpp ñu ngi leen di jaajëfal ñu ngi leen di jaajëfal bu ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax dëgg la ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax Jigéen FM ak beneen numéro incha allahu rabbin

ñu waxtaanee mbirum wujje bi parce que ni mu ni mu mel jéggi na dayo te pour ñun nii dañ ko war nañ ko mën a waxtaanee ñun jigéen ñi. se entre nous ñun jigéen ñi kese la parce que góor ñi ñoom seen yoon nekku ci ñun kese la koo fi soo soodee yow yaay dem police yow yaay dem tëddi te loolu jaru ko fi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di leen wax ne leen ni amul lu ñu kontaanewul woon jaajëf merci à la prochaine incha allah. was good eh? in the